nag jot na mu dakk parce que li procureur Alioune Ndao wax day firnde rek ne bu dee liste vingt cinq ñu topp ci kenn dong génne ko réew mi te kenn xamul naka la mbir yi dem li nit ñi mën a jàpp mooy am na taxan féeteeg wet justice équitable dañu ko soxla ci Sénégal justice bu tëddee njaaxaanaay dañu ko soxla ci Sénégal justice boo xam ne sénégalais yi dañu koy wóolu dañu ko soxla ci Sénégal loolu day tax ñu def truchement dugg ci ñetti nit ñi nga xam ne seen bakkan rot na gis nañu démocratie Sénégal ni ñu koy salfaañe gis nañu ni ñuy dale ci kaw opposant yi ku ne gis na li dal ci kaw Ousmane Sonko may ñaan suñu boroom fëgg boppam waaye nag waaye nag waaye nag may fàttali acteur politique yi ci senegal ne moomu leen réew mi may fàttali acteur politique yi ci Sénégal ne bu yoboo ngeen taxaw jël seen responsabilité ki ci jiitu nag di président Macky Sall moom soxna Batoor moom lañu ñu jox moom moom mi ngeen tuddee soxna Batoor moom la jox réew mi moom la ñu jox caggal guyu réew mi moom la wax ne ko réew mu ne ñum lañu ñu la jox président Macky Sall ngalawaay booy dem góorgóorlul ba bàyyil ñu fi réew mu ne ñum réew mu ànd ak dal réew mu ànd ak jàmm réew mu ànd ak sutura réew moo xam ne boroom kër yi seen xel dana dal parce que nag loolu la ñuy soxla ci réew mu mel ni Sénégal kon may am yaakaar ci taxawaay bi nga xam ne kenn ku nekk ci ñun war na ko am parce que boo gisee Sénégal ni muy doxe tey jii dafa am benn interview bu ñu jot ci presse bi moom président Macky Sall li ñu doon ruumandaat di wax waxi troisième mandat liir leen bu baax li mu wax moom ci boppam nee na admettre na ne que question bi c'est une question politique waaye bu ngeen xoolee nangu na ne bu nangoo sóobu ñetteelu mandat lay def te xam na ne sénégalais yi pare wuñu pour jox ko moom Macky Sall ñetteelu mandat parce que moom Macky Sall Macky Sall tële la wone Macky sàll mënatul def lu weesu li mu def Macky Sall tële ak yaradal la wone te lii mu def mënatul a weesu li mu def damay wax ak démb kenn ma ne ko xoolal fi terre bi jaar commune yi terre bi jaar yëpp aka ñoo am lu leen metti aka ñoo am ay jafe-jafe aka ñoo am problème mu ana aka ñoo am problème mu assainissement aka ñoo am problème mu mais Macky Sall dafa toll ci jamonoy noos parce que l'ivresse du pouvoir daf ko yóbbu moom Macky Sall ci nawlootul yéen sénégalais yi ngeen doon Macky Sall dafa yegg foo xam ne jàpp na ne moom confort personnel la loolu rek moo am solo xoolal fi muy jaar bëtam fi muy tegu bu jugee këram di jëm pale ñaata la fa def 23 milliards ci ci ci ci jëmbat ay fleur ak i defi njoowal c'est la réalité c'est une triste réalité au même moment au même moment nga dem jaxaay seen centre de santé bi ñu ngi koy tabax fukki at ak benn mënta yem au même moment nga dem quartier ay numaaj nga dem quartier Serigne Mansour nga dem Bawal fii ci Tiwaawan Pël boo demee ndoxum teen la naan boo demee jigéen ñi dëkk Bawal jigéen ñi dëkk Bawal fii ci Ndakaaru ci Tiwaawan Pël ay biceps la am parce que dañuy xëcc goj et ça on parle ne du teew ñuy nataal ñu ngi nii toog waaw kon bu fekkee ne moom Macky Sall tey jii mu ngi nekk ji gundaandaat ci alalu réew mi ak njabootam waa Medina Gana ñu ngi fii ñu ngi may dégg waa Medina Gana Sarr ci zone de recasement fii ci Kër Massar ay saret lañuy ñuy jël consigné leen bis bu nekk ngir nit kuy mucc saret yi ñoo lay génne pour yóbbu la ci hôpital et loolu biir Ndakaaru kon jot ñun ñu xam suñu bopp jot na ñu mën a jëflante ak ñi nga xam ne dara yiteelu leen lu may lekk alalu réew mi lu may dundee ñaqu baadoole yi te loolu faw ñu taxaw ci ngir mën koo fee jële beneen bi nga xam ne mooy jafe-jafe yi waay waaye ku ne gis na ne location tey la gën a seer Ndakaaru ku ne xam na ne naxe mbaay la li ñu di doon wax ne dañuy wàññi location mais man bi ma gën a yittee damay wax suma ko collaborateurs yi démb ci waxtaan ma ne leen dama jóge ci njaboot goo xam ne booy xëy doon ndékki kontaan ñu ne dañuy wàññee yaay njëg yi mais ku ne xam ne njëg yi mënta wàññeeku te taxes yi wàññeeku te ki fixé taxes yi mooy président de la république kiy def taxes yi mooy ñoom ñi jiite réew mi parce ci taxes yooyu la dundee ci taxe yooyu lañuy ñuy dundale seen njaboot ci taxe yooyu la ñu jël di pasar pasaree alalu réew mi kon commerçant bi lu ko waay wax da koy tooñ commerçant bi tey jii dañ koo wax ne ko suukar si nga doon indi Ndakaaru suukar sa nga doon jaay Ndakaaru léegi da ngay dem ca usine ba jënd ko waaw léegi kooku sañ nga mu jël otom dem jën jëndi suukar si ba noppi dellu siwaat jaay ko njëg ga mu ko doon jaay ma ne waxtaan wax dëgg sax làmmiñ bu waxul dëgg wax safaan kon jafe-jafe yi ngeen nekke kenn tegu leen ko ku may président Macky parce que moom moo yokk njëg yi moo yokk dund gi te loolu moom yëgu ko kon nag ngeen xam ne ñoom ñu ngi fooye alalu réew mi waaye pare nañu ñun gëm sa bopp pour jëflante ak ñoom pare nañu nag pour jàkkaarloo ak ñoom may wax rek ci coowal quatre vingt mënut a bu yoboo ñu xam muy tey muy ëllëg quatre-vingt-dix-huit milliards yooyu dana leer moom Mansour Faye tey jii bu nekkee ci réew mi di lapp-lappi dara waralu ko lu mooy sëyam sëyu sëram bu neex waaye nag na xam ne na xam ne sénégalais yi teg nañu leen bët te alalu réew mi danañu ko gox waxuma la rees ñu ko gox parce que quatre-vingt-dix-huit milliards yooyu ma doon wax des fois ma dégg am na benn député bu ñàkk xorom boo xam ne comme Mor Ndeye lu xew mu dugg ci mu naan Bougane day wut buzz man ba man ba ma amee buzz kenn xamul koy leeral ne c'est vrai am na ay marché yoo xam ne xaalis bi du nekk trésor waaye dégluwu leen li ma wax dama ne contrat de marché bi dañoo bind ne xaalis bi trésor la war a dem waaw kon boo ko yóbbuwul trésor wàcc nga yoon waaw bu fekkee ne ministre de la république ay service am mën nañoo lekk quatre-vingt-dix-huit milliards ci loo xam ne ministre des finances yëgu ko mais ça veut dire que ñun nekkatuñu ci république ça veut dire ku nekk mun ngaa am sañ-sañu boo amee porox ndoll nga dem lebi lu toll noonu ci xaalis te ministre des finances du ko yëg ma ne leen compte yi ñu ubbi compte ya amul autorisation ministère des finances xam nga boo leen woowee ci guy bi dañuy wax waxi kàdd gi pour détourner la man kenn du ma détourner li ma wax dafa leer compte bancaire yi ñu ubbi ñoom Mansour fay ak ña muy liggéeyandool compte bancaire yooyu amul autorisation ministère des finance te ma ne ma dolli si wax leen ne leen moom Mansour fay li muy taxaw di weddi li mu taxaw di ko weddi du yenn saa yi bu ko journaliste yi waxee dara mu ne leen daf leen di plainte li mu taxaw di ko weddi moom Mansour Faye bind na lettre jëme ko ci ministre Moustapha Ba di ko demande mu reconnaître compte bancaire yooyu may wax man te yor